mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci bés bii di màggalu sëriñ fàllu di bésub waxtaanee ak fàttaliku ay jikkoom ay jaar-jaaram ñi ngi ziara mboolem jullit rawat na njabootu cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu tàmbale ko ci xalifaam sëriñ Abo ak ay rakkam yépp cheikh mouhamadul bachir ibnu sëriñ fàllu di ziyaara waa këram yépp sëriñ moustapha sëriñ xalil sëriñ fàllu di ziyaara cheikh ahmadul badawi cheikh ahmadul rafaa'i ak waa kër sëriñ fàllu yépp ak bokki taalibi yépp ngir fàttaliku jaar-jaari sëriñ fàllu dañoo bëgg a ñëw ci xaj gi nga xam ne moom la sëriñ fàllu xaj yi woon màkk ànd ak Serigne bu Bousso maam Cheikh Anta ak mbooloo mi àndaloon ca 1928 di xaj gu rëy xaj goo xam ne marqué na taarix waaye di xaj goo xam ne yëpp dafa mottali yéene Serigne Touba yéene ju rëy ak bëgg-bëgg bi mu amoon ci xaj màkk ak ziyaara soppeem ba sallallahu alayhi wa loolu feeñ ci mbindam bu baax doy na ca rek fa muy waxee yaminu rabbiya mazaarul mujtaba ahabu lii min mili lardi dahaba suuf yi fees dell ak wuruf siyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma gënal lool mu gën ko ci yàlla xaj gi nag sëriñ Fàllu da koo bind da koo bind ci téré bu ndaw netli jaar-jaar yaak ya xew ca yoon wa yépp عنوان تربية قصة الرحلة إلى الحرمين عبر البلاد العربية سنة 1346 هجرية 1928 ميلادية قصة لا قمنا سرين فالو تي بوبام موكو بند دي نتلي حجم حجي والمك اك مولم لقاو خew ci yoonu dem waat yoonu dikk wa mu fees dal ak ay njariñ ak i bind toogul ba xew-xew ba weesu mu jël xalimaam di bind yoon wa nam demee woon waaye bind gi ak xew-xew bi dañoo ànd ba muy départ la jël xalimaam di bind mboolem yi xew te jara bind ci yoon wi tàmbalee ci taarix bi kañ lañ jóg juróom-ñaari fan ci weeru mars 1928 le 7 mars 1928 nee na bés bi ci weeru tubaab nga xam ne mooy dëppoo ak fukki fan ak ñeent ci ramadan weeru koor ama wam sa chin wam sa chin mooy 1346 hijriya fukki fan ak ñeent ci weeru koor 1346 في الساعة العاشرة والنصف تي ديجر دني فكت وقت اجن ولا تلين ديبار فان نريد حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه السلام نيار نيو تاجو بقى حج نيغو بيا الله بي بغا زيارة يونت بي صلى الله عليه وسلم تكي اجنان ن اللهم لا تحرمنا اجر هذين واتمم لنا المراد yàlla bul ñu xañ yoolu ñaar yi yàlla nag ñu mot li li ñu bëgg nee na biñ duggee fii safinatin yuqaalu laha amartadi ñi ngi dugg benn gaal gu tudd amartadi nee na ci laa yëkkati sama xalima sadd bayit yi mu wax ñetti bayit lu mu wax قصدت زيارة النبي الكريم بلا زاد عن الشيخ القديم وقدت المعرقات فسالمتني بوائقها وغبت عن النديم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على الكريم بيدي من كويت البحر الوافر من دبلنا زيارة سنغبا كتبت صلى الله عليه وسلم يبالي وما أبدنه wutuma lu ñuy lekk wala lu ñuy naan di yóbbaale maa ngi jugee ci jëwriñam ji Cheikhul Qadim di xuus ci géej du duusi géej yi labale waaye jafe-jafe yépp jàmmoo nañ ak man bàyyi naa samay àndandoo ak samay soppe maa ngi dem yóbbuloowuma ab dund ndax lan yenu ab dund moo gën a bon lépp luy bon bu dee ka nga jëm ca moom karim la ku tabe la ku tedd la wa xallu zaadi aqbaxu kulli cheyin ida kaana alquduumu ala karimi kon départ nañ juróom-ñaari fan ci weeru mars woowu fukki fan ci weeru mars ba tey 1928 ci bésu gaawu samedi nee yegg nañ ci benn île benn île bu ndaw île boo xam ne boo ko comparé ba topp ca moom île bu ndaw la muy La Salmas bokk ci espagne nee na île la bu bëri ay garabu banaana fukki fan ak ñett ci weeru mars wi 1928 ci bésu talaata ñu yegg ab daarul bayda ab daarul bayda muy Casablanca ca Maroc nee na aka ndaw dëkk bu rafet فما أحسنها من بلدة طيبة وبها جامع مزين رفيع banaahu mawlaaya alxasan sanata 1315 nee na daarul bayda Casablanca fekk nañ fa jumaa ju rafet ju yëkkatiku ku ñuy wax mawlaaya alxasan moo ko tabaxoon ca 1315 hijriya dugg nañ ci jumaa jooju alhamdulillah bañ fa duggee nee na fa lañ jullee yoor yoor fa jullee ñaari rakkay yoor yoor waaye naafila googu yool bi dañ ko yéene acheikhul qadim radiallahu taala anhu kon fukki fan ak ñett ci mars di bésu talaata lañ yegg Casablanca muy addaarul bayda mu ngi yéem taaru dëkk bi di wax juma ju taaru ju yëkkatiku ju fa nekk Mawlaay Alxasan tabaxoon ko ca mille trois hijriya nee na dugg nañ ci jumaa ji julli fa ñaari ràkk salaatu duha yool bi ñu def ko hadiyaay cheikhul qadim radiallahu taala anhu bés ba ca topp muy àllarba fukki fan ak ñeent ci mars lañ yegg Tanja bañ feegee taxaw nañ fa ab diir fa tolloo géej gi ñenn ci ñun wàcc nañ ñu jógee fa dem jabalu taariq jabalu taariq ibnu Ziyad ci même bés bi muy àllarba jooju lañ fa yegg barab boobu it nee naa barab bu yéeme la boo xam ne fawqal was bokk ci kilifteef ak moomeelu Espagne doonte anglais yi am nañ fa cër le 15 mars 1928 alxamis mooy bés bi ci topp lañ yegg ci beneen jazira benn île bu ñuy wax Kabalousa foofu lañ war a déparé ngir dem Marsilia diggante bi toll ci 800 juróom ñett téeméeri kilomètre moom it mu bokk ci moomeelu espagne 17 mars 1928 ci bésu gaaw samedi lañ yegg marsilia googu dañ koy wax ba léegi marsi nee na yegg nañ di sant yàlla ndax yegg nañoo gàmm bañ àggee wàcc nañ dugg nañ ca barab boobu xool fa ay mbir ba usine ba ñuy liggéeyee suukar ak ay xeetam xool nañ ko le 20 mars 1928 nee na tombeeg bésu talaata ci lañ jël gaal départ Marsilia googu war a dem Escandaria muy Alexandrie ca Égypte le 24 mars 1928 di bésu gaawu tombeeg di bésu korite ñu jullee iidul fitri ci lañ jullee korite ci diggante maanaam ci yoon wi diggante Marsilia ak Askandariya lañ jullee korite sëriñ Mbacke buso jiite ñu bi imaamatu Cheikh Mbacke Bousso waaye ci bisu korite boobu lañu yegg Askandariya alhamdulilah. bul fàtte ne ba ñuy départ moo doon fukki fan ak ñeent ci weeru koor léegi biñ jógee Marsilia jëm Askandariya ci la. koor gi jeex fekk leen ci yoon korite jot ñu julli ko ci yoon wi ci njiitul Serigne Mbacke Bousso ci bés boobu di le 24 mars 1928 di bésu gaawu bésu samedi ci bés boobu it alhamdulilah lañ yegg Escandariya nee na Escandariya fekk nañ fa xabru yonentu yàlla daani yàlla alayhi salaam ziyaara nañ ko xabru sayiduna luqman alxakim moom it ziar nañ ko luqman mi alquran di wax ba tuddee ko saarwa muy suratu luqman ziar nañ fa ba tey xabru muhammadul busayri busayri burda busayri hamziya busayri alqasidatul muhammadiya waykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ziar nañ it xabrub sëriñam muy sayiduna abul abbas al mursi alayhimu ridwan loolu yëpp ci la 24 mars ci bés ba ca topp muy yowmul ahad di ñaareelu fan ci weeru korite tombeeg le 25 mars nee na ziar nañ fa xabru yeneen wàlliyu sayiduna bishr alxaafi radiallahu anhu ak sayiduna yaquutul arsh radiallahu anhu yaquutul arsh mi ak abul abbas al mursi ak busayri ay wàlliyu yàlla yu mag lañ bokk ci at tariqatu shadaliya naka noonu sayiduna jabir ibnu abdillah al ansari moom it nee na ziyaara nañ ko fa ziyaara maqaamam sayidi ibnu alxaajib ibnu alxaajib mu dal di ci teg ak ñaan ne allahumma la tahrimna ajraha yàlla yàlla bu ñu xañ yoolu ziyaara yi te yool bi yàlla na nga leen ko bindal ca seen téere jëf wa balliqu ila sahaifihim radiyallahu anhum bi jaahihim wa jaahi man dufinu fiha yàlla yàlla na nga nangu ziar bi bindal leen yool bi lu ñu leen fi ñaanal yëpp yàlla na nga ko nangu bindal leen ko ci seen téere jëf ci seen barke barke ñañu fa suul le 26 mars 1928 di bésu altine nee na ñu wàcc ci barab bu ñuy askane Ismail Gharib ar-Rashidi foofu dañ fa wàcc rek ngir istiraaxa barab ba wàccoon numéro ba mooy 105 le 27 mars 1928 di bésu talaata di ñeenti fan ci weeru korité wi nee na docteur bi woo nañu euh, woo nañu ci barabam daal dañuy saafara ci garabam ga mu tekki ñaan ne allahuma aafina yàlla yàlla nga jàmmal narju min allahi bi xurmati cheikh alqadimi alladi qumna li ixdaamihi an laa yuassira fiina ñi ngi yaakaar yàlla ci xormay cheikhul qadim yi ñuy liggéeyal garabu docteur bi bu mu jeexital ci ñun wallahu ala dalika qadir wa bil ijabati jadir wallahu almustaan mu ne le 30 mars 1928 bésu àjjuma ginnaaw bi ñu jullee jumaa ci jàkk jooju nga xam ne xabru sayidina muhammadul busayri fa la nekk ziyaara nañ sayidi ibnu ataillahi al iskandari radiallahu anhu borom alxikam le 3 avril di bésu talaata ci ngoon muy juróom benn waxtoo genn wàll si jëre demi lañu départ bàyyeekoo alexandrie jëm Caire al qahira jaar nañ ci ay jaaruwaay ak ay taxawukaay yoo xam ne tudd na ci yu bari ba bañ yegg keer le 4 avril àllarba ziyaara nañ sayyiduna al xusayn ala jaddihi salaatu wassalaam nee na ci ngoonu bés boobu dugg nañ jaamiul azhar siyaare ko ak na mu yéeme daal ñaan yàlla bul ñu xañ yoolu ziyaara sayyiduna al xusayn te nga jottali ko yool bi ca téere jëfam naka non ziyara nañ yenen qabru qabru sayyidna amr amr ibn al as ak domam abdullah ibn amr ci aduma 6 avril ziyara nañ qurafa ay qabru ca misra ziyara nañ ba tey qalil ziyara abdullah al mutawaffa sanata 1204 ziyara qabru sayyidatna ruqiya mbokum sayyidna husayn سيارة نياري دومم وي سيدتنا سقينة اك سيدتنا نفيسة سيارة سيدنا الإمام الشبلي محمد البكري اك اي مبكم تا جامع الإمام الشافعي سيارة من فأي قبر يبري بكم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الإمام الليفي الدومم شعيب kon barab yooyu yàpp siyaar nañ ko ci bés boobu muy juróom benn fan ci weeru avril 1928 juróom ñetti fan lañ bàyyee ko keer googu jëm Suisse si yoon it am na ay jaaruwaay ay wàccuwaay ay dëkk nee na ñu toxal suñuy bagage ci oto bi mu duggoon yóbbu ko ci beneen oto continué dox bi jëm Abu Sultan jëm xalban jëm xanbal ba bañ ñuy yegg Suisse nga xam ne ña nga fa yegg gannaaw zawal ci ngoon six heures loolu tombeeg fukki fan ci weeru avril walillahi alhamd foofu lañ war a dugaatee ci géej gi nee na ñu jëlaat bato bato bu tudd Mansuura ñi ngi ñaan ak di yaakaar yàlla mucc ak jàmm fukki fan ak ñaar ci weeru avril ba jant di fenk lañ yegg ak tóor muy barab bu yéeme montagne boo xam ne boo ko gisee bëgg kontaan ngir tudd ji ko alquranul karim tudd mu melal montagne baag na mu yëkkati ko dëkkuwaay ya ak xabru wàllu yu ba fa nekk muy alkaylaani radiallahu anhu le fukki fan ak ñett ci weeru avril 1928 ci 9 heures yegg al wàcc bis bi ci top muy fuk ak ñent 1928 fuk fa ak ñent ci avril di bésu samedi lañ yegg yambu al bahri walillahi alhamdu wal minna ñu wàcc fofu xujjaaj yi di wàcc ci Nouvelle Delhi bés bobu di le 14 avril 1928 di bésu gaawu samedi nee ci lañ yegg wàcc yambu al bahr ñu duggu fa hujjaje di wacc ci waxtu 9 h demé gënaaw lolu néna ñu woñu wo hujjaje ya ngir da am ci biir bato biñ dugoon wala ci biir auto bi da am ku jëllu mom ñu doon xol bagage yi ñi néwon ci biir kenn par kenn waaw ko dafa jël lu toll ci juróom ñaar fukk junne muy xaalisu misra waaye nee na gënaaw loolu summa udqil naa lillahi alhamdu fi ahsanil buyut ñu dugal ñu dalal ñu ca néeg ba gën a taaru ca néeg ya xamal ñu ne xujjaaj yi balaa ñuy jógee fii di dem Madina ginnaaw ñaari fan lay doon loolu la 14 la moo tax ci la 16 avril 1928 di bésu altine lañu génn ci barab boobu lañu génn ci barab boobu muy yanbuul baxri bi setteere demi jotee fi saabiati wa nisf jëm fan ilal madinati munawara ci yoon wi jaar nañ taxaw benn teen biñ demee ba zawal ca digg waxtu wa ñu julli tisbaar fa al bi fa bi'rul ahmar barab boobu nga xamne digeentem ak biiru ali biiru ali moy fin da wax dul xulayfa ca cosaan neena ci digeent boobu la xabru walu yàlla wuñu wa abdurrahim abdourahim albarda bañ tolo xabroom taaw nañ fa jàngal ko sóoratul ikhlas ñeen fuk ak ben radiyallahu taala an mu tekke ñaan rabbana taqabal minna neena ci bés bobu nak ci lañ dugg almadinatul munawara ci lañ ziyara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga am nañ tawféexu yegg Madina ci bésu altine bés boobu nga xam ne moom la yàlla tànnal yonent bi muy bésu gane àdduna mooy bésu wuy boromam mooy bésu rañaanam mooy bésu gàddaayam mooy bés ba mu yegg Madina nee ci lañ yegg Madina ñu ziyaara xabru bi yonent bi ziyaara ñaari am doom ya muy Abu Bakar ak Omar عليهما رضوان الله تعالى لا 18 افريل مزيارة البقيع قبر المدينة تدنا اي تركيا نين فزيارة تفصيلا تمبليتا صالح القلفاء عثمان بن عفان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا صفية عمة رسول الله safiya safiyatu bintu abdul muttalib di bàjjani yonent sallallahu alayhi wasallam sallam ziyaara sayidatuna xalimatu saadiya mi nàmpal yonent sallallahu alayhi wasallam sallam ziyaara nañ sayiduna abdullahi abu rasulillahi way juru sallallahu alayhi wasallam sallam ziyaara ummahatul muminin radiallahu taala anhunna ziyaara sayiduna aqil ibn abi talib radiallahu taala anhu yaay sayiduna aliyu muy fatimatu bintu asad ziyaara nañ ko ziyaara aliyun ibnul xusayn te mooy sayiduna aliyun zeynul abidin ziyaara doomam muy muhammadul baqir waaye doomi muhammadul baqir jaafar assadiq naka noonu doomu jaafar assadiq muy ismail ak seen doomu baytax assaid عبد الله ابن جعفر الطيار موم ميغا خامني نيان لوني نانغولا تي اف قبرو لولو مجرب لا زيار من سيدنا الامام نافع سيدنا الامام نافع سرينو امام ورش نكنون سيدنا الامام مالك ابن انس امام دار الهجره سيارة سيدنا عثمان ابن مظعون من جك سول كالبقيع kon bi ñu yeggee Madina ca 18 avril siyaara nañ baqeex xabru yooyu yëpp siyaara baqeex yëpp le 22 avril di bésu dimanche ca Madina Serigne fallu ne ci la way lii lu mu wax fa min touba li taybata qad nazalna nazuuru sayida chahma alhumaama فمن زار الحبيب وصاحبيه فلا بحث يقاف ولا ملاما أيا خير الأنام ومصطفيه ñun ñi ngi jógee Touba wàcc Tayba siyaara sang bi nga xam ne amul morom mooy sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam soppe bi nga xam ne ku ko siyaara siyaara ñaari an doom yi lu muy ragalate ragalatul baxsu dara luy waral ak manqué ak wàññeeku wala ak yedd yow mi nga xam ne yaay gën ji mbindeef yaag sa ñaari tànneef yooyu walillahi alhamdu mu ne julli nañ jumaa ñeenti yoon ci almasjidu nabawi kon madina def nañ fa ñeenti semaine àjjuma fekk nañu fa ñeenti yoon ñu jullee jumaa ca jàkkaam ja sallallahu alayhi wa sallam waaye ci fan yi def madina la 26 avril 1928 di bésu alxamis génn nañ dem baqia زيارنا سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه زيارة نياري أندوميا مي سيدنا عبد الله بن جحش بوكم زينب بنت جحش بوكتي أمهات المؤمنين زيارة آه، سفير الإسلام مي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه شماس بن عثمان رضي الله عنهم يوم زيارة نيلا لفان سات أفريل نانا ني جولي المسجد النبوي الشريف يالنا يالنا نانغو جولي غوغو يالنا يالا نانغول نانغول بولمي جولي تقبل الله منا ومن جميع المسلمين الغائبين منهم والحاضرين لا 28 افريل دي سامدي نانا ني مسجد قباء واي زياره مبروك الناقه فغليمو يونتبي صلى الله عليه وسلم غورون كرو بامو غداي دم مدينه وا مدينه ديكو خاتو مو ورنا ناغا xaswaawu te mu ne bàyyi leen ko fa innaha mamura fa mu goorloon boppam mooy mabruku naaqa ziyaar nañ ko biru aris ziyaar nañ ko xubbatu taaqatil kashf ziyaar nañ ko barab ba aay bii wàccee muy la masjidun ussita ala taqwa min awali yowmin axaqu an taquma fii fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataxaru barab bi aay boobu wàccee nee na ziyaar nañ ko naka noonu ay desit ci banu najaar yooyu yëpp rek siyaar nañ leen foofu ca madina fan yooyu ñu nekk fa nee na masjidul xamaama kadalika julli naa fa ñaari rakk ala saaxibihi wa ala alihi wa sahabatihi salaatu wasalaam léegi ñi leen dalaloon ñi leen dalaloon doon leen ganale ca madina ay kilifa yu baax tudd na ci السيد الفا هاشم ak asayq assanusi ak ku tudd aliyun bin afandi ak ku tudd xuseynu xuseynu jayaat ak ahlul murshid muy alxasan ibnu uqtin ak ibnu hamza ibnu hamza ibrahim hamudi الشيخ البخاري محمد الإمام assayid qarbuut ghalib ibnu nasir ñoo ñëpp bokkoon nañ ca ñu leen dalaloon doon leen gàddine ca ca madina le premier mai di bésu talaata nee na dugg nañ ci benn kër goo xam ne ku ñuy wax cheikhul islam ibrahim hamoudi moo ko moom foofa wan nañ fa wan nañ ñu fa benn kaamil ci kaamil yañ bindoon ca kaamilu sayidna Ousmane ya mu doon mbindum loxo du photocopie du mool le 6 mai 1928 di bésu dimanche moom it tombeeg fukki fan ak juróom-benn ci Dul Qaada muy weeru digg tabaski loolu yëpp ña nga ca al Madinatu Munawwara bi 4 heures 20 4 heures 20 minutes jotee nee na taw bu yéene la yàlla ji taw taw boo xam ne lépp ay nees la lu mel ni ay doji glace yu wàcc loolu nag nee mi ngi tombeeg bés boo xam ne ñoom bés bi ñu doon jël ijaaza. ci benn kilifa gu tudd as-sayyidu ahmad as-sanusi mu jox leen ijaaza bu ànd ak ay sanadam nan ma joxe ijaaza ba mooy naawala ni subha wa albasani alqirqa bi yadihi jox na ma kurus gi solal ma kaala gi ci loxoom gannaaw ba mu ko summee ci boppam baadama qalaaha min rasihi albasaniha wa qaal mu solal ma ko daal di wax ne bismillahi ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam libaasa taqwa insha allah nee ñu sax madina wër wu mat ak ñaari fan fan wër fan ak ñaar lañ def madina le vit mai nak nee ziyara nañ biru sayidna usman ziyara masjidul qiblatayn ziyara masjidul fatxi masjidu sayidna salman al farisi masjidu sayidna abi bakr ibn siddiq masjidu sayidna umar masjidu sayidna ali radiyallahu taala anhum fi kulli waqtin wa saa barabi yab ziyara nañ len ci le vit mai muy bésu talaata waaw nee na ci madina gii Serigne fallu nee na feebar dal na ma fi boo xam ne feebar bu ne mel musul maa dal waaye alhamdulilahi ala zalik maa ngi sant yàlla ci loolu waaye nee na jëlee naa fa wér goo xam ne it musumaa yëg wér bu ne mel ci sama yaram santaat yàlla alhamdulilahi hamdan yuwaafi niama wa yukaafi mazida daal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallim bi qadri azamati dhatik بقدر عظمة ذاتك عند كل طرفة عين ونفس وتنفس كل نفس عدد ما قلقت وما قلق أبدا على سيدنا ومولانا محمد وصاحبه وقديمه آمين يا رب العالمين. le 11 mai 1928 guddig àdduma di ñaar fukki fan ak benn ci weeru diggi tabaski sëriñ Fall ne maa ngi fanaan ci alxaramu nabawi diggante rawda ak alqabru sharif diggante rawda ba qabru bi ci laa fanaan jàng fa alquran yépp wa xatamtu alquran alhamdulillah nee na jàng naa kaamil bi yépp ba suuratu naas دي عليه سنت يلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحن كامل بي مجانا وجعلت صوابه للشيخ القديم وهدية أرجو من الله قبولها بقدر عظمة ذاته بلا شيء من الآفات والأكبار والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نحن يولو كامل بي دفناك هدية acheikhul qadim di yaakaar yàlla mu nangu ko bi qadri azamati zaatihi ca kem màgg ak jëmmam ji ci lu am te benn gàkk wala benn ndox ndox mu continuer le 17 mai 1928 nee na insha allahu lañ war a waajee madina jëm jidda bare koo jidda dem màkk màkk googu lañ war a jooxay mbooleem faratay xaj ak sunnay xaj ak yuñ sopp ci xaj maqbulina bi fadlillahi وجوده وكرمه لا ديجويت ما ديبسو ادوما انا تيرن جوغي مدينه نك نيو جده غناو بن واجه حرمل تا ذو الحليفه فيونت بي صلى الله عليه وسلم حرمل فنان بئر عباس بايكو فا دم رابع لا 19 ما ني بايكو رابع دم جده لا 20 ñu bàyyi ko jidda dem makkata al mukarrama le 21 mai lena ci lañ yegg makk euh, jaar ca saniyatu kuda alhamdulillah waaye balaa ñuy dugg makk sangu nañ ca v3 dugu al masjidul haram jaaree ko ca babu salaam wër kaaba gi juróom ñaari yoon fóon nañ الحجر الاسود نكون الركن اليماني جل نن نار رك تا مقام ابراهيم تا اكتا ملتزم تا حجر اسماعيل تا رنزاب نان نن زمزم دوخ نن ديغنت سبا مروه جروم نياري يون نانا يالا خيوال نانو ñu ubbil ñu kaaba gi ñu dugg ci biir nee na ma natt kaaba gi ak sama loxo guddaay bi doon ñaar fukki xasab ak benn chebre ci sama loxo bi yaatuwaay bi doon fukki sebre ak juróom ñaar ak beneen sebre bu manqué ay baraw nee na ci biir kaaba bi julli nañ fa juróom ñett rak wet gu na rek jublu nañ fa julli ñaar rak ba ñeenti wet yi mat muy juróom ñett rak الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله le 26 ماي 1928 nee تي ci ñu ziyaara barab bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee woon àdduna ca cheikh bu abi talib waaye ziyaara nañ barab bi sayidatuna fatima ganee woon àdduna muy kër sayidatuna khadija ziyaara ji nañ jabalu abi qubays ziyaara ji nañ mashaqul qamar le nee na ñu génn màkk nag mu yow mu tarwiya dem mina bañ demee yendu fa fanaan fa julli nañ fa julli juróom yépp xëyee fa dem Arafa le 29 1928 le 29 mai nee na ci waxtu yor-yor lañ yegg Arafa dem ca jàkkay Namira jullee fa tisbaar ak takkusaan jamaan wa qasra daal di taaw Arafa ba maanaam taaw Arafa xayra saaimin wala malulin yoqatuñ doyaluñ ba jant so ñu bàyyee ko arafa dem muzdalifa nee na yàlla xéewal nañu bi ñuy jógee arafa dem muzdalifa dañoo do ak tànk lu tax ñu do ak tànk ijji laalam ngir màggal yàlla waqtinaaman li shukur le 30 mai nee na ñu fanaan ko ci muzdalifa fa lañ boolee timis ak gee gannaaw asulusul awal min al layl fa lañ fanaan ba jullee fa fajar jógee fa jëm ñi naa yegg fa yoor yoor sànni jamratul haqaba daldi yewé ko nak yewé ko ndaw watu dem màkka def tawaful ifada delu ci wat minam ci bés bi fanan fa bés ba ja top ñu sànni ñetti jamr yeb wula wusta xaqaba le premier juin ñu defaat jugé wat fa dem makka ndax ñaari fan lañ fa def suñu xaj daldi di mat nee na walillahi alhamdu man xatamtu alqurana fi almasjid alxarami wa azunnu wàcce naa kaamil ñaari yoon ci biir al masjidul haram le 2 juin ci guddik samedi nee na ñu daal di xarmal ñu dem ca Tan'im xarmal umra ñëw daldi di umra wër kaaba gi dox safa maro ba umra gi mat léegi xaj nañ umra nañ guddik dimanche di la 3 ci lañ fas yéene delluwaat Sénégal إن شاء الله سالمين غانمين لا أرنا الله إلا خيرا أو سلامة وعافية إلى أن وصلنا جميعا إلى طوبى بحرمة قديم رسول الله عليه رضوان الله تعالى di ñaan yàlla mu bañ ñoo wan lu dul yiw jàmm ak mucc ba ba ñu yeggaat ñun ñëpp tuuba bi xurmati qadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la 7 juin 1928 di bésu alxamis dëppoog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tabaski wi nee na ziyaar nañ jaddatanaa Hawa ca Jidda ñaan fa yàlla le huit di bésu àjjuma di fukk ak juróom-ñeent ci weeru tabaski wi ñu dugg daqal naa fi safina ila Bayrut léegi ñu ngi ci yoon dellu si jëm si Bayrut wa insha allahu saalimina gaanimin nee na yoor yoor lañ dugg yendu ci géej gi gaal ko bato bi di daw ba tisbaaru samedi di ñaar fukk fan ci weeru del xijja muy tabaski bañ jullee tisbaar ci njiitul alxaaji mbàkke buso nee na ci la ci la ci la gaal gi daal di départ walillahi alhamdu bismillahi mujreha wa mursiha inna rabbi la gafurun rahim wallahu almustaanu ala ma tasifun léegi ñu ngi ci yoonu ñibbisi la 11 ci lañ yegg a tour gannaaw bi jullee tisbaar wàcc fa la 12 nee na ñu ñu la douze ñu toxu dem ci ay néeg yoo xam dañ koo jagleel xujjaaj yi am nañ fa ñetti fan la quatorze di bésu alxamis di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski wi nee na ci la docteur bi ñëw ñëw te suñuy loxo di di ñuy xool comme ni docteur yi di xoolee di seetee nit kenn par kenn ca suba ga nag ci lañ daal di départ le quinze nee na ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan lañ bàyyeekoo tuur kooku jëm Suisse ànd ak jàmm incha allah ci cinq demi bi jant bi fenk ci bésu àjjuma yi ci lañ yegg sant yàlla le 16 di bésu samedi euh, di ñaar fan juróom-ñaar ci weeru tabaski bi nee booba jant ngi fenk lañ yegg pour Saïd muy barab boo xam ne bu yéeme la le ba tey ñu ngi ci yoon wi. la 18 la na la 19 ci guddik àllarba nee na raaytul hilaala bayna Bayruut wa Marsilia nee na ci la séentu gis weeru muharram tabaski jeex na léegi weeru muharram feeñ na boobu ñu ngi diggante Bayruut ak Marsilia mu léegi génn nañu euh, wam sachin waaye ñu ngi ci zam sachin 1347 hijriya mu ñaan yàlla def ko muy weeru barkeel weeru jàmm ak mucc le 22 di bésu àjjuma di ñetteel wala ñeenteelu fan ci muharram diggante Bayruut ak Marsilia googu bi jant bi di fenk lañ yegg fu ñu tuddee jabalu naar daal di ñaan allahuma ajirna mina naari wa asbaabiha yàlla musal ñu ci safaraat lépp luy sabab nga dem safaraat léegi ñu ngi ci yoon la vingt 24 ba le 26 le 26 ci lañ ci lañ ci lañ yegg ci lañ yegg ci wax Dakar le 26 bi 5 heures 15 minutes 5 heures 15 minutes ci lañ ci lañ dugg war a war a war a jëm si Touba insha allah nga xam ne yegg nañ Sénégal war a départ nag jëm si Touba kon ci gàttal loolu mooy qissa bi Cheikh Mouhamadul Fadil nett li ci seen yoonu xaj wu màgg woowu gis nga li ngay njëkk seetlu rek mooy yoon wi yépp yàlla la barab yi nitu yàlla yi romb jumaa yi boroom xam-xam yi amul benn barab boo xam ne da ngay yëg ne dara daraay àdduna topp na leen wala rax na leen lépp rek yàlla ngir yàlla ba ba ñuy yegg ak diirub lañu fa nekk xoolal ni mu yittewoo jàng alquran li mu wàccee kaamil ci biir jumaa yonent bi bay na rawdati wal qabr ca masjidul haram ak ci barab yi mu tudd yépp bokk ca eh, barab yu baree bari comme ni nga ko xamee waaye liñ ziyaare ci xabru yi borom xam-xam yi ak wàllu yàlla yi ak saxaaba yi nga xam ne xaj bi daa fees dell lépp lépp lépp jaamu yàlla la loolu moom lañ doon fàttaliku tey di ziyaarewaat ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kooku la bëgg nag. kooku la bëgg nag ngeen jàpp ko bu baax. nee na naa si jàpp sëñ Tuubaa bu baax. xam ne amul kenn ku dul moom. sëñ bi nee na naa si jàpp sëñ Tuubaa bu baax. amul kenn ku dul moom. ngeen wàccee seen lépp. ngeen wàccee suñu lépp. fekk si ko fekk si ko. loolu yéen a ko wax yéen a ko waxal seen bopp. kii nag yéen a waxal seen bopp kenn ku ne ba mu xëyee këram moom moom ay bokkam naa ngi jàpp sëñ Tuubaa. moom itam moom itam. ku dikk ku dikk fekk si ko. moom ku dikk fekk si ko. boo fi amee ñetti fan wala ñeent. mu yebal la nga dellu. boo fi amee ñetti fan wala ñeent mu yebal la nga dellu. la la la la la la taxaw na jóg dikk fekk si ko. la taxaw na jóg dikk fekk si ko. mu def ko ci yow ba dee ba demee seen bokk topp ci yow. mu def mu def ko ci yow boo demee seen bokk topp ci yow. ñu ngi topp si ci moom. ñu ngi topp si moom. sa nekk sa baay ni si ni fi suuf nga ne sa kaw. ni sëñ bi nee na sa nekk sa baay nekk fi suuf nga ne sa kaw ni sëñ tubaab rek ko mos a seetlu. moo ko mos a def. moo ko mos a def. kuy topp kuy toppale. mais kuy topp kuy toppale. waaw moo ko mos a def. moo ko mos a def. kon nag jàpp nañ ko. ndey ak baay feete suñu doom. waaw sëñ tubaab rek ko mën. jàpp nañ jàpp ci sëñ Tuubaa bu baax. jàpp leen ci moom. nee na jàpp ci sëñ Tuubaa bu baax. kii ngeen am kenn amu ko. kii ngeen am ñeent kenn amu ko. kenn amu ko. sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko. da ngay sant bu baax. El Hadj Fallou Mbacké nee sëñ Tuubaa kenn amu ko. ne mm-hmm. du ñun ñëpp am. nañ ci maa ngi jàpp bu baax. Mm-hmm. waaw bisimilah man man man moom rek moom rek la am. mais Balaye Fadu nee na amul moom lu muy sëñ Tuubaa. bëgguma leneen. mais bëggul dara lu may sëñ Tuubaa it. bëggul leneen. bëggul leneen lu may sëñ Tuubaa rek. waaw ginaaw bu dul wéyee lii itam nag. nee na alaaji benn mbàkk yi ne ginaaw bu dul wéyee lii itam. yàlla dafa wax ne. yàlla dafa wax ne. atiwu laaha. atiwu laaha. wa atiwu rasoola. wa atiwu rasoola. wa ulil amri minkum. wa ulil amri minkum. sëñ Tuubaa moom liggéeyam la jàpp. sëñ Tuubaa mii nañ naa si jàpp ko bu baax. wóote wuloon di wóote wuloon dara lu may. coow yi daa bari ci réew mi. ba boobu seen bopp yéen ñëpp. fekk na xam ne sëñ Tuubaa rek la jàpp. sëñ Tuubaa rek. ni ngeen def nag it. ni ngeen def. ne balaw dem dem bëgg a bëri seen bopp. waaw nee ngeen ne balaw bëgg a bëri ji. te ku ci nekk da ngaa am wala mooma. te ku ne da ngaa am mbooloo ma nga xam ne mbooloo ma nga yor. mooma moo boolu seen Tuubaa. loolu la ngeen fa béy. dikk leen fii si ñëw leen fii. ngeen def ngeen def ko fii si moom. ngeen dikk ngeen def ko fii. defi tool rek defi tool. uti tool dong rek. uti tool rek di béy. sax da ngeen ko wut fii si moom. yow tool yi nag ngeen di ko wut ko fii fi Tuubaa ji. ak àll bi boo gàddaay foofu da ngay taxaw. gàddaay fekk nit lam la sant da nga fay def. da ngay taxaw moom da ngay taxaw moom. dégg ngeen ko ma ne daa sëñ Mouna xabaar mi ngi jébbalaat yéen ñëpp naa si ne jébbalaat bu baax da ngeen di jébbalaat bu baax. waaw ah, dégg nga waaw ah, dégg ngeen ni sëñ bi wax ngeen dégg ko bu baax. lii ma leen wax nag ne. lii mu leen wax ne ne. taalibe rek fi ne. ak taalibe rek fi ne. léeg-léeg ñëwu fi. léeg-léeg ñëwu fi. mooy li ngeen def. mooy li ngeen def. moom ci boppam moom sëñ bi ci boppam. moom sëñ Tuubaa ci boppam. mos na woo fa fa Jolof. nee sëñ bi nee na mos na demee woo ca Jolof. sëñ Moussa ak sëñ Modou ak man. moom moom sëñ moom sëñ Modou Sala ak sëñ Fallou mi ak sëñ Massamba Mbakke ak sëñ ma roqee ñoom ñeent waaw waaw mu ne ñu sëñ bi ne leen dama la bëgg laay biir ne dama leen bëgg laay biir loolu nag moo di loolu nag moo di dama bëgg ngeen xam ne man mii dama bëgg ngeen xam ne man ma amu ma ma amu ma rak aw ma rak aw ma jarbaat aw ma jarbaat aw doom aw ma doom lii ma lii lii lii fi ne lii fi ne ku ko fi wut si ku ko fi wut si sa mag may sa mag di sa sa nijaay di sa baay ku ko wu ne gisuma wu ne gisuma kon nag noonu ko wut si bu baax. noonu ko wut si ñun ñëpp. yéen a ngi ko wut si dégg nga. kon nag dégg nga ko ñun ñëpp ñoo ko wut loolu. ba njëkkee njaareem gii nag. ba njëkkee njaareem gii nag. ma bind est-ce que jox ko man. ne moom El Hadj Fallou Mbacké mi bind ok jox seen Tuubaa. ne ko ne ko. li ñu tudd li ñu tudd suñu diggante ñu ñu ko wax ak ñu réer. ne ko li nga xam ne dañ ko tudd suñu diggante ñu ak ñu réer la. jaay naa la ko yënde ko li li xam ne moom waa bi. ne jaay naa la ko yënde ko ak taalibe rek li nga xam ne moom laa ko yënde man nga yaay ba génne ko def naa di lépp ginnaaw mu fa mu jëndoon ca kaw mu ne ko far na fi def ko addi kon nag man fii ma ne kon nag ne moom fii mu ne du ma doom ji bëgg doon bàyyi ba nee du doom ji bëgg doon bàyyi ba ndax amul nee du taalibe bëgg ceex itam lu man doy na ab taalibe rek man du ma dara maa ngi fi rek. mais moom moom du dara ma ci taalibu sëñ Tuubaa. li li wax nga sax taw mi ngi fi rek. maa ngi fi rek bu ñu si bu ñu si wala mu dugg ci biir. waaw mu bu ñu si ñëw sëñ Tuubaa mu dugg ci biir sëñ Tuubaa rek. loolu rek la waaw. waaw taw man bëgguma waaw waaw kenn du jublu man bëgguma doon dégg nga man man bëgguma doon sama bay ndax amul bay. sëñ bi ne bëgg la doon bàyyi ndax amul bay. jaay naa jaay naa sëñ Tuubaa mooy suñu bay ñun ñii ñëpp kon nag. ak taalibe rek. mu tali mu tali bi itam ndax ndax. mais du du bëgguma ceex itam. mais du tali bi bu ceex rek la bëggum ceex itam fépp ko ci. mu tali ab taalibe rek. léegi dugub taalibe sax moom daa dugg ci biir sëñ Tuubaa rek dafa dugg rek sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek foofu la nekk dafa dugg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek yéen a nekk foofu yéen